département région Fatick ci Sine ba ma eh, jàngee école Tataguine ba am entrée en sixième ma dem lycée Faidherbe bu Saint-Louis bi ñu commencé lycée de Gaulle ñoo fa jëkk ñoo ko ubbi donc fa laa jàngee eh, est-ce la eh, ba ni ma dem jàngale ji xombol Mbour d'abord ensuite xombol ensuite directeur d'école à Djilakh. Quand j'avais 19 ans, <laughs> j'étais trop jeunes et donc j'ai préféré aller dans une grande école pour me frotter avec les autres enseignants et acquérir plus d'expérience. C'est pourquoi je suis venu ici euh, moo tax ma ñëw fii pour euh, tasa fee nag am directeur bu euh, am solo ku laa biir muy El Hadj Mamadou Lamine Thiam daanaka moom mënu encadré ba fi la nekk ba macha allah fi la amee samay eh, examen professionnel fi la ko réussir ba am CAP def na concours ENA bu fa jógee ma nekk inspection du travail bu Thiès jóge fa dem eh, inspecteur nekk inspecteur régional de Diourbel ba pare nekk aussi inspecteur régional de Tamba fa laa jóge nag retraité depuis 2002 mais maa ngi continuer quand même di jàngale ba tey ndax maa ngi jàngal eh, borom entreprise yi seen diggante ak seen i liggéeykat. di leen si ni ñu saytoo seen seen diggante ak ñoom macha allah. waaw Mokhtar Cissé Mokhtar Cissé fii la amee fii la admee Prytanée dem dem euh, jàngi Ndar jóge fa nag demaat université jóge fa dem ENAM il est sorti major de sa promotion ensuite jóge fa nekk euh, inspecteur commissaire aux enquêtes économique def concours inspection générale d' jàll ko macha allah liggéey na sax Ablaye Wade macha allah daal kooku daal moom. voilà alhamdulilah. samay loxo ci la jaar mais aussi ak magam bu nekkoon aussi enseignant fii ci école bi muy Alassane Cissé mu jëloon nekk euh, sax euh, consul du Sénégal a Barcelone magam boobu donc euh, dafa amoon chance su am ñaari jàngalekat magam ak man waaw xëy nag ci man la entré admis entrant sixième mais. Euh, magam aussi participe bu baax a baax ci formation te it xale bu macha allah ko am euh, colère la si na ci école bi sax defar yenn classe yi xaw na màggat fekk na ko loolu quand même jar naa sant ci loolu macha allah alhamdulilah. xanaa di bëgg rek ndax wax dëgg si yàlla daje bi may nanu ñu nekk ñu gisante ci sunu biir fekk gënoon gëj nañu gisante am na 40 ans am na 30 ans. tey ñooñu dajawaat nañu ñu gisante ñaareel bi aussi ki ñuy sargal tey suñu maître la bàyyee nañu ak loo xam ne fu nu dem fu nekk gis nañu ne bàyyiwuñu ak suñu bopp jàngal nañu xam-xam jàngal nañu yar jàngal nañu wax mu jub jàngal nañu jëf mu sell ci loolu lépp nag lañu boole tey ji indi ko booloo ngir jéemante buñ fi jógee tey ji lu ñu mën pour dimbalee ko école bi ak li nga xam ne sax muy dëkk bi ñu taxaw lu mel noonu pour que dëkk bi mën a bénéficier ci li nga xam ne mooy seen doom yi nga xam ne monsieur Kane sargal ka fi ci l'école bi. waaw sargal bi moom ni ma la ko waxee léegi ci nasaraan rek laay bëgg a féddali ci wolof mooy monsieur Kane daf fi jaar jàngale fi diggante 1968 1980 muy fukki at ak ñaar ci benn école bu ñu toogee ba ñeent fukki at gannaaw loolu ay élèves di ko sargal dafay wane ne. moom am na lu mu fi defoon lu am solo euh, yàlla suturaal na ko ba élèves yi mu féerewoon tey bariwul ñu ci naax saay koo ci gis mu ngi ci ab cadre la ci réew mi wala yore ay yëf yi boppam mu yore ko yorin bu rafet loolu bokk na ci li taxoon ñu ne nañu jéem a wut bés bu mel nii pour tudde ko ko sargal ko beneen bi mooy ñu nit ci suñu xalaatu gestion participative mooy fexe ba communauté bi def corps ak école ci la ñu xalaat ne taxawal bés yu mel nii encore dina ci am solo dina ci am solo ndax dina tax kenn ku ne yëg am yëg-yëg ci école ba dugal ci loxoom loolu mooy firndeel bésu tey bi. comme ni ko njiitu réew mi waxoon. waaw retour aux réalités de la France. xamante ne maanaam pexe mën a def pour yokkute école bi voilà loolu booy booy xool li ñu doxee nii dafa ànd dafa nekk en droite ligne en phase avec le retour au royaume d'enfance xëy na jamono yi ñu ko daan def mooy ci semaine de l'école de base. waaye ren ñun depuis ñeenti at ñu ngi waaj bés bu mel nii mu xaw am jafe-jafe ndax boo amee mbooloo moo xam ne ñëpp kenn toogut te amuñ bokkuñu bokkuñu emploi temps bokkuñu calendrier soo amee occasion rek da ci ciy sote ñun moo tax tey ñu teel a anticiper ci mbir mi waajal ko def ko bés bu mel nii ndax bu ëllëgee mu gën a yomb ci ñun. sànq bi wax nga ci jafe-jafe école bi est présentation jafe-jafe waaw présentation école mooy wax naa la ko muy muy école bu am juróom-ñetti fukki at benn la 1930 lañ ko créé bañ koy créé ci ñetti classe la nekkoon waaye bi ñu demee ba 1978 école bi àgg na ci fukki école ak ñaar fukki classe ak ñaar ci jamono ji may waxee yow nag fukki jàngalekat ak juróom-benn mu ngi ci ci loo xam ne ñetti arab ñetti arabisant ñu ngi ci biir euh, loolu moom mooy configuration école bi euh, jafe-jafe ñi comme ni ñu ko waxee léegi du mos a jóg ci école. classe yi màgget classe yi nañ xam nga école bu ñu nee am na juróom-benn juróom-ñetti fukki at màgget na waaye nag dañ koy sant yàlla. ndax itam population bi bàyyiwul seen loxo ku mel ni monsieur Makhtar Cissé koo xam ne monsieur Kane mii tey moo ko jàngal muy directeur de général de la Sénélec nekkoon fi également directeur de cabinet du président de la République jàppale nañu fi jaar jàng na fi CP ba cm jàppale nañu fi ba ñetti classes yi moo ko rénové defaat ci ay table banc toilettes yële bi ñu fiy ñëw xel xalaatuloon dugg fi da ko def ba defaraat bay moom mu ne boy ba ay lépp a ngi si biir kon loolu wax dëgg yàlla euh, dañuy jàpp ne retour au royaume d'enfance bi lu réel la ci dëkk bi. nombre élèves yi aussi dafa yomb waaw loolu mooy wax naa ko sànq ci nasaraat mooy ñun lu ñu xaw sonal fi nii mooy effectif yi ndax classe bu demee ba juróom-ñaar fukki at élèves ak juróom juróom-ñaar fukki juróom-benn juróom ba ñeent waaw ñeent taab waaw xam nga du yomb malgré que nag dëkk bi am na bari nay école waaye nag dëkk bi itam ni muy yokkoo ci population Euh, autorités yi war nañ ko bàyyee xel ba mun di yokk école yi loolu mooy suñu jafe-jafe mu mu gën a tar ci école yi voilà jërëjëf kon